salaam mbokku téléspectateurs yéen ñi nga xamante ni yéen ay safoo ndamoon sow pula jéeri comme ni ma leen koy waxee saa su nekk li mu bëgg a doon bi yemale ma ko benn place ndax saa su ne damay bëgg a xam maa yow li nga bëgg a doon kee toog lan la bëgg doon ak képp koo xamante ni yaa ngi safoo sopp la lan nga bëgg a doon ba tax na tey damaa yoruwaat waxu waa mi nii rek di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di bëggee képp koo xamante ni yaa ngi may bëggee ma dugg biir si Kambaaw comme ni ma koy defee saa ne war a jaxarloog benn góor yàlla boo xamante ni ñu ngi tudd Mamor noonu laay def rek daal di ñëw nuyu ko teg ko fi mu toog moom tamit ma seq ak moom waxtaan ak tontu wayal lii say ñoon ji bëgge way mën na neex dëgg la su amee ndeysaan la nga ciy wax fexeel mu neex ñi ñeewa tey moom rek laa génn tey fii dugg nii ci bal bi nii bëggee ci sama waj. ci loone yaa ngi am jàmm nuyu naa la faynal lu bari sama xarit nuyul mbokku téléspectateur yi lay sétan à travers Elvision Média ñu ngi lay bu baax baax di fay bu baax di nuyu ñëpp ñi ni seetaan tay di rafetlu seen taxawaay ak seen ñëw seet ma tey daal mbokk yi gis nga man saa su ak fi may génn tey nag nii def ñëw fii ci jalu fëgg jaay bi di jaale ki di Mamour Anta Sali waaw kay maa ngi lay nuyu bu baakha a baax di kontaan ci dalal sama émission bi nga xamanteni moy lima bëgg doon ndax té nak damay bëgg man buñ xamé lima bëgg doon xam yow li nga bëgg doon ké di ma sétani sa su may dem ci mom pour xam la la bëgg doon ma ko ci fenn tay nak ma tass tassal ba dugg ci biir balu jaay bi may bëggé bu baakha baax képp ko xamanteni ni may seetaan waye tamit dila wax nga nuyu ñi lay nga nga nga nga bëggé len daal waaw may nuyu ñi di nuyu yow tamit di nuyu sama gaay yor caméra ak yépp di nuyu Sénégal gëpp di encourager jeunes yëpp tamit ci benn côté. waaw Mamour noo jantalee nii ba yàq ñi toog nii. neexul nekk xale rek. gëm sam bopp bëgg liggéey. te yàgg ak liggéey loolu yàgg si liggéey loolu trop. Ah. ndax ba ma xamale koo ba tey. Mm-hmm. lii laay def liggéey jaay. commerce nag mooy sama métier quoi aw ma beneen métier lu commerce. mais dama ko gëm aussi dama ko fonk dama ko respecté. Mamour de day mel ni daa daal di tontu sama question te laajaguma ko ndax ndaxte dama xam nga ne damay faral di def su ma yoree sama waxukaay bi képp ku dem ci moom rek laaj ko lan la bëgg a doon. sama question bu njëkk nag loola war a doon ci yow mooy lan nga bëgg doon. lan laa bëgg a doon comme si lu ma nekk nii rek gën a développé ci li ma nekk nii. parce que si laa si laa nekk te dama ko gëm te aussi tamit ay at a ngi maa ngi ci xam naa njariñ li dem naa ba maîtriser ko xam naa lii lan la xam naa lii lan la may jariñ daal. franchement parce que y' a beaucoup de sénégalais nga xamante ne nii ñoo ngi ñoo ngi yëngatu ci fëgg jaay mais ñoo ngi ciy sant yàlla parce que ñeewuñu suñ benn morom ñun ñuy jaay fëgg jaay ci benn côté. waaw c'est ça le euh, sama deuxième question day ñëw ci yow Mamor nu nga jantalee nii tubaarkàlla macha allah mm-hmm. idée bi nga am nan nga nan la ñëwee ci yow nan nga jékki sax pourquoi pas euh, préféré woo dem voyage tukki comme say morom genre mais nga toog teg sa table lonk say yére nii di jaay idée bi nan la la ñëwee. Mm-hmm. idée bi ni mu ñëwee mooy tey man dama nekk benn jeune ba nga xamante ni dama yàgg xoslu nag doon ànd ak sama doom bàjjan yi waaw yal na leen yàlla yërëm ku naan Papa Dieng yal ko yàlla yërëm lépp lu nekk ci man mm-hmm. moo ko def ci man. ci ngor ak fulu ak jom ah, di nuyu tamit sama bàjjan bi nek ndiarem ñango bindu samb mom laa tuddee sama dom waaw mom def na ci man lu bari sama carrière parce que moma moma xamal nan la ñuy jom moma xamal nan la ñuy góor di mel waaw di dima di ma lo dal def ma def ma gor yalla ñom ñoo nek tay ma ñoo tax tay ma nek gor yalla dal franchement parle man di sant di len gëreum wa ndiarem man boy ndiarem la dekk mais fi ni post la dekk fi fi laa moom nee na ay ay ay mbokkam ñoo def ci moom gëm gi mu gëm boppam waaye itam toog gi mu toog fii nii di jaay ku ne xam na ne jaay mu fëgg jaay ak nu mu demee Mamor yow lan nga mu mën a wax ci fii nii parce que fii boo fi nekkee tubaarkàlla ak nu nga mel nii nag ah ci góor ah xale jigéen ñi fii faral di ñëw di la nan nga koy gérer. waaw mais da ngay gérer comme client rek parce que tamit ñëw rek yow moom moo la méré xam nga mm-hmm. moom moo lay féete kaw da ngay naxtaan ak ñoom façon client bu nekk na nga fi gis xam nga ku neex deret ak ku xam bagage ak ku xamul bagage mais comme que yow yaa bëgg ba yow yaa woote rek yow yaa gis ku nekk parce que yow yaa woote quoi te ki woote moom mooy muñ quoi c'est bi may waxee mooy côté tentative bi parce que ku ne fëgg jaay ni jigéen mhm. parce que jigéen ñi même bu dee góor sax góor ñi dinañ faral di jëndi fëgg jaay mais dëgg neexul jigéen ñi ñooy faral ëpp ñi nga xamante ne ñoom ngay recevoir fii mhm. nan ngay dund ak ñoom parce que jigéen tam ne xam nga léegi ak jamono ji fu mu toll daa bëri tentative lan ko. ma ciy dund moom ah, sant yàlla parce que tamit jigéen bu ñëw naa la accueillir waxtaan ak yow lijjanti ba jaay la ci diplomatique quoi donc sax yow bu la leneen àndee danaa naxtaan ak yow ba jaay la mais loolu noonu yow dangay dem yow ba dootul nekk ci yow bu la fi leneen àndee am nga soxna. waaw am naa soxna. fii nga ko amee fi ngeen xamante wala. non sama doomu tonton laa tax quoi. ah déggal lii <laughs> moom. neexul séeréer bu ñaaw bi. déggal lii tey biram penda waagaan dugg dugg waagaan angis waagaan. ëpp na ma ngay bàkk jabar ji de dëgg neexul waa léegi ne damaa bëggoon nga wax ma tuuti ci fëgg jaay bi nii. Hmm. lan nga ci mës a dund loo xamante ni. Euh, neex na la loo ci réaliser. Mhm. en grosso modo loo ci réaliser loo xam ne mën nga ko teg sama loxo. wax dëgg fa yàlla bari na te booba léegi daal wax baaxul maa ngi sant yàlla te maa ngi ciy dox ay jéego daal franchement parler ba ma ba may jaay fëgg jaay ba tey gisuma ci lu lu ma lu ma déranger daal loolu ma ci am te daf may gën a neex su ma xëyee man pour ma jaay fëgg jaay parce que xam naa ko maîtriser naa ko te xam naa valeur bi tamit dama koy jox ak xam parce que su may xëy si damay impact sol lu rafet xeeñ lu neex parce que ay nit laay jaay. kon du ma déborder damay. foofu laa bëggoon a ñëw ak yow tuuti maam Mor parce que da ngay gis ñoo xamante ni dañuy jaay fëgg jaay. Mhm. mais du ñu def comme ni ngay def. ñun dëgg neexul Sicap la ñu dëkk si Mbao la ñu dëkk. Mhm. ni ngay def nii da ngay da nga ci jublu encouragé ñi nga xamante ni ñu ngi la fi romb. Mhm. Euh, te bañoon a jaay fëgg jaay wala lan nga ci jublu. waaw parce que euh, nit nit ku nekk li nga nekk da nga bëgg. am ñu la ci xam nga ñu la ci roy quoi parce que référence dafa baax parce que man kon fi ma teg tey sam bët mooy ay maarañang grand commerçant yu nekk tey kolobaan samay grand samay xarit wax dëgg fa yàlla xam nga ñooñu ay référence lan daal ñooñu dama leen teg bët teg bët bu ma leen teg bët mooy ci lu baax daal franchement parler noonu la demee daal. métier bi mës nga si am jafe-jafe. non jafe-jafe nag mënu si ñàkk parce que fëgg jaay moom ndax aduna ak jafe-jafe sax ñoo ànd ndax suñu borom moom <coughs> mënul la sàkkal chaque jour muy neex yaa ngi dégg mhm. ndax suñu borom defar na àddunaam yàq na ko te dootul jàkk c'est ça le mais jafe-jafe moom si liggéey yëpp la am daal franchement yeah jafe-jafe ban nga ma ci mën a wax kon ak ak ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan dafay neex aussi bu ñuy bu ñuy waxtaan boo laalee côté bi la neex nga laal côté bi nga xamante ni aussi mës nga ko ci dund mhm. parce que day day day day encouragé daal dëgg la parce que bal moom comme ni koy waxee rek kumpa la kumpa mais ñun maîtriser nañ ko xam nañ ne tey bu ñu demee di jëndi body body lay nekk nag mais li ci nekk ci biir ndax body bi dana xooteeku ak du xooteeku loolu moom dañ koy bàyyi si loxoy yàlla parce que euh, kumpa la daal alalu jinne la des fois da dagg mu rafet des fois nga dagg mu ñaaw nga perte mais dangay muñ quoi tamit da ngay jël bu mu doon neex nga taf ko ci perte bi quoi adduna moom noonu la demee quoi c'est ça ah waaw kon noonu la ndaxte nit moom boo nekkee ci benn affaire des fois nga dund ci lu la neex dund ci la naqari comme nu nga ko waxee mais lan ngay wax képp koo xamante ni tey jeune la euh, nekkoon ci mbedd yi di naan ataaya genre bañ a liggéey ngir xeeb fëgg jaay wala xeeb leneen ak leneen lan nga leen di encourager jeunes yi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan à travers El Vision Média sénégalais ak sénégalaises yi li ma leen di wax man duma ma complexe li opposé à Senghor parce que àdduna moom da ngay nekk ku modeste quoi nga xamante ne nii xam nga mooy loolu noonu daal gëm nga sa bopp aussi li nga nekk nga jàpp na lii nii mooy sa jamaa mm. yaa ngi dégg mais des fois da nga gis ka nga xamante ne day nekk ci benn affaire nit tomb di ko ko xeebal te fekk lam cee am ka nekk ci magasin sax mënu ko cee am yaa ngi dégg mais loolu lépp ci inspiré sénégalais la quoi parce que sénégalais yi dañ war a bàyyi complexe te dem liggéey yi góor yàlla da ngay liggéey na ndaw xale uh-huh. liggéey rek la war xale liggéey la war jàppale say waajur lu say waajur bëgg ah, nga dem def ko yàlla dalay avancé loo yaa ngi dégg mais naan dëkk bi dafa dëgg dëkk bi dafa dëgg dem toog wala di di li naan xale tamit dafa war a jub ndax lu naan bëri pexe jub daf ko gën quoi ndax am na ñoo xamante ne ñoom taf ya nga rek la ñuy jéem a teg seen àdduna quoi ay nu ma naxee ki kii mille bi naxee kii 10 000 jaar fee ne am sas interdit ci yoon boobu yooyu taxawul gor yàlla yéen laay waxal sama mbokk yi sama classe yi dem leen liggéeyi jéem a jub jaamu yàlla jàppale seen waajur c'est ça le moo fi nekk milliardaire boo fi gis di ko ñee dafa dem liggéeyi affaire yi xoolal ay naxaate nii xoolal amul njariñ te du la yóbbu fenn gaay dem leen ngeen liggéey loolu laay encouragé sama mbokk yëpp góor yàlla yëpp ak jigéen ñëpp sama jigéen yeeg ñëpp loolu man loolu laa xam quoi xawma ma leneen munu ñaan mënuma ma sàcc munu ma nit ok kon nag liggéey rek la war moom nga war a def appliqué ko quoi mu dëgg ci yow nga jubal sellal tamit loolu yow mi ma seetaan Mamor ni mu ko waxee noonu la amee ndaxte liggéey mooy wàllu gor moy walu gor waye itam di walu jigen kon boko beugé teunk rek da nga nan moy walu gor ndax gor ci nek warna baña talal mba muy ñaan lol mom lol mom dama ci and ak yow bu baax baax baax comme ni nga ko waxé képp ko xamanteni ni ngi émission bi nga bàyyi xel ci Mamor lu mu wax mais tay yow réaliser nga am nga plus place. waaw man dogal na am benen place ko Thiaroye waaw sama soxna mo fa nekkon xam nga di taxale comme comme fi rek lan amé lepp di taxale ndax fi def fi 5 ans ci ka fi kuma fi xamul amul. aussi tamit dem naa fi voyage Maroc dem naa fi ay gine Bissau tourné naa daal Afrique xam nga dem naa fu ne ay gine Guinée yi dem naa fi tourné naa Afrique daal waaw loolu la quoi tourné naa ba sonn daal man daal sama sama vie daal parce que tey du ma mënee casé wu ni toog ci taabal bi rek am na lu ma xam quoi ci lu naan tey génn soo ci ameewul tamit da ci amee xam-xam. waaw foofu laa bëggoon a ñëw ndax tey comme nee nga génn nga génn gi moom lan lan moo tax nga génn ba yàgg rek nga ñëwaat ñëwaat. visé ne da ngaa war a def euh, jaay fëgg jaay wala ba nga ñëwaatee am na beneen métier boo nekkoon ba jaay fëgg jaay bi génn wala da ngaa jugee voyage rek ñëw di jaay fëgg jaay. man avant may dem di voyage yu Maroc euh, dama doon jaay fëgg jaay fii bu may dem ma dagal sama bopp bi avion dem jël yoon suuf bi te jéem a jàll Espagne mu dëgër ma def fa 4 mois mu métti trop ma repiler wu ñibbisi xam nga encouragé waat sama bopp parce que tey su ma nekkoon complexe du ma ñibbisi waat. yaa ngi dégg parce que mun naa ne comme que dem naa Maroc dëgër na rek xaaral ma toog siisu mhm. te gars yu bari bàyyi naa leen fa tàngal Balla Gaye bii la ñuy jaay bu ñaar dërëm bi ay punkal parce que te bon ko defloo fii ñu bañ sénégalais ak sénégalaises yi dañ complexe te complexe baaxul nit dangay ngay gëm sa bopp honnête sincère xam nga xam nga su ko defee nga modeste yow man géej sax wala yéen bañu ma ko yéenu di ko jaay parce que moo yor sama teraanga kon du ma ko duma ko du ko xeeb du ma ko minimiser dama koy favoriser c'est ça parce que li lay teral ah di teral yow tey say njaboot da koy fonk xam ni valeur bi lan la loolu la quoi. comme ni nga ko waxee rek ndax yaakaar naa ne yow gëm-gëm ngay bëgg a teg ci sama loxo donte ne yaa ngi bëgg jaay fëgg jaay nag mais dag ma bëgg a woon ne nit ki lépp lu muy yëngu da koo war a gëm. ndax ngëm-ngëm moy doomu adama may contane bu baakha baax ci gëm gi nga gëm sa bop ndax man sa genre yi wër han ah, man nit kep ko xamanteni ni loy def ba ci borom pous pous yi ba ci kep ko xamanteni ni ñepp ñepp ma ngi leen di xaar ci sama émission bi ma lay wax nak lu nuyoo tago han ah, ñu ngi yegsi ci cappaandalu émission bi xana da ngay bëgg teunk rek damay teunk parce que limay teunké moy lan may gërëm wa sikap gëpp fi sikap amna fi 5 ans juroomat wa fi xalé yu ndaw yu sax xamna na ñepp ñëpp ku ne Mamor boo taxawee ci talibé xamna ma ay dégg mais nag man ay bagages yu rafet laay jaay comme yii boodi yi nii tuba yi xam nga. mais damay dagg dugalaat beneen question parce que nit ku nekk boo foo def cinq ans. yaa ngi fa nekk ak say dëkkandoo. Mhm. te ku ne xam na ne dëkk moom. Mhm. bu neexee bees bees ga la. Mhm. na bu yàggee muñ am na. sa diggante ak sa dëkkandoo yi. waaw sama dëkkandoo yi moom noo mën a parce que dafa mel ni du yow doon yaa fi jaay fëgg jaay. non du ma fi jaay fëgg jaay man kese mais man kese maa fi njëkk a jaay fëgg jaay fii ci man nga ko gisee quoi fi boobu fi amul parasol amul dara naaj bi fi sama kaw la doon wacc yandu sama kaw la naaj bi doon yandu ba ngon jot amul parasol fi ma koy vi di ko dund mais lusot lu soti am lu soti am borom mhm. te lu tek beur nday tamit mama deug la ma ngi di sant ma ngi leen di gërëm parce que interview bi ngeen def ni wax deug fa yalla am ci fete ak contenté di len sant waaw di wax sama caméra man bu ñaawul bi nga xamantene mom lu sama xarit la mom ndaysan lekul dara baye ma sama gaay la lu jaba ju sol man lay ñew fi ne ma mor xam nga gënal li ni mom tam même chose dafa day ñew lu mol japp ci combat bi te mënon nako baña def parce que fëgg jaay bari na ci mbéd mhm. mais xaalisam la may yéene ma ngi koy sant diko gëreum aussi di gëreum sama yaay bu baax di gëreum sama papa di ñaan yalla yëkëti ko da tawat aussi di gëreum sama jabar wax deug fa yalla jappalé na ma xam nga aminta baax la ku ma la si lépp parce que ñun moom comme ay jigéen la ñuy jaay lu bari xam nga dañuy gis lu nekk mais day muñ xam nga di boole lu ko neex lu ko naqari ñu koy gërëm di ko sant leen wax yéen one love moom maa ngi kontaan ci tamit ah macha allah maa ngi kontaan ci yow kontaan naa trop interview moom ah zéro faute quoi nice nice bég naa di leen ñaanal yéen seen télé bii nii ah mu nekk xool ay télé yu gën a gën a gën a gën a mag waaw ba li ngeen ci namm yéen bëgg yàlla defal leen ko quoi kontaan trop franchement parler parce que tamit baax na ci daal jërëjëf Mamor xool gaa yi ci ruux yi da dugg ci ruux yi nag da xool commerçant yi yi den xool ambulant yi yor mbuus yi man def naa Tamba def naa fa deux ans di ko ambulant di yor mbuus yaa ngi dégg def Maroc yaa ngi dégg def Sandaga Ponti Conk def naa fu ne Guinée Bissau Gambie fu ne ay fajankatu ay karantaba ay tànnaaf ay bangeer Casamance fu ne laa toj dama toj ba ñew tok ndeysaan. motax lu ma nit di jaay damay régler rek di la xol parce que gis na lu nekk kon la vie dal c'est comme ça liggéey rek door war rek yeen ci kaw ci kanam ci lu baax. merci beaucoup Mamor ñu ngi contane bu baaxa baax ci dalalon ko euh xana ñu jema xol rek sa cliente be lan la ci doli waaw ki sama cliente la quoi maa koy jaay. xara xara xara soxna ci lo bëggone yow. xanga nga man lépp laay def tay ci kaw table ji laa yek may ma ma ñëw mii daal di laaj clientam bi sonna sino def maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm noo tudd. Anne Marie laa tudd. Anne Marie maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la wax ne tey waa El Vision ñoo la dekkoon waxukaay bi parce que tey dañoo ñëwoon def ak émission kii di Mame Mor te mu moom muy seede ne yow yàgg nga jëflante ak moom. may mën ma lay laajte lan nga mën a wax ci moom ndax ki gis nga ko moom góor la gëm na boppam day def fort daal di ñëw toog tiim ki bal bi di jaay lan nga ñu mën a wax en tant que am. Ah, waaw maam maam bon fii laa ko xamee si mhm. maam ku baax la. te dóorkatu waar la liggéey rek laa ko xamal day jaay yu nice nag lii ma sol nii si kaw ba ci suuf ma may habillé namu ma city sport gis nga sama yére bi nice ul. bi nice ul nee na moo ko solal kaw ba suuf jeex na. ok Anne Marie ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax dëgg neexul nee naa la man fu ne laay yoree sama waxukaay bi di fa dugg jaaykatu mbuus yi na ngeen ma xaar jaaykatu café mbedd yi na ma xaar képp koo xamante itam yaa ngi gis émission bi mu neex la nga bëgg ñu jàkkaarloo ak yow demal YouTube rek nga xool Elvision Média fi mu toogee nee naa la nga abonné ba mu neex la nga wàcc ba ci suuf rësal ba wàcc commenté la la saf daal di wax li nga bëgg ñu ñëw fekk si la nga joxe adresse ak lépp ñu ñëw fekk si la foofu dafay jox émission ndax ñun seen mbégte mooy suñu kontaan te yéen yéen ñuy dundal dëgg neexu ci li leen neex rek la ñuy dox may jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ma doon seetaan à travers Vision Média di la wax rek saa su ne defal noonu rek aboneel foofu la bul teggi sa tànk ndax nag instant yi ni mburu mu fi génn suñ boulangerie la génne ñun ñooy taal ñëpp ñooy jox ñëpp ah dëgg neexul may kontaan euh, kenn mu tudd sax madame ah, waaw waaw waaw waaw eh, yéen a ngi sama fulaar nii Mamor moo ma ci génne Mamor ana ana pil bi léegi kii solal Bamba Bamba do doon yowone leen ma Bamba mi nga xamante Mamor moo ko solal da ngay day sama marketing de <laughs> waa gis nga comme ni ma leen ko waxee saa su rek happy la ama ah, happiness no no stress la ñuy xaar leen mu baax a baax yéen jaaykatu café yi comme li ma la koy waxee may jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp surtout nag monsieur Djigo maa ngi koy fóon bu baax a baax merci à toute l' équipe de Elvision Vision Média surtout sama doole ma dimbale ci nu mu tudd <laughs> femme ah, maa ngi kontaan ci bu baax baax di nuyu Baye Zal euh, de passage di bëggee képp koo xamante ne yaa ngi foofu ak soxna yi nga xamante ni ñoo fi taxawoon ci wetu Mamor vraiment di ko jàppale di remercier waa Sika bi yëpp surtout Mounas Tour du Monde sama yaay maa ngi lay kontaanee bu baax a baax lépp lu neex ci émission bi tey jox naa la ko maa leen di jaajëfal ba beneen yoon incha allah ci beneen émission li ma bëgg a doon ak soppala jeeri wan